laata maa def liggéey bi nga xamante ni mooy liggéeyu uude daanaka doon naa xar matt fu ne ngir mën a am koppar su ma financé sama njàng euh, niki noonu ma daal di euh, commencé njàng mi ci atum 2020 euh, niki tey yàlla suturaal ma ma def formation bi pare ko ci diiru ñaari at. avant uude bi mun naa ne bon nekkoon naa fi caissière nekk fi assistante aussi. mais à la fin comme que liggéeyatuma dama mujjee dem di jaay ay légumes di juste pour mon a fay li nga xamante ne moom sama transport pour ma mën dem defi sama formation. non juddoowuma ci environnement ou dé mais quand même bricoler def mo mus neex du coup hésité wu ma benn yoon bi ma proposé formation. formation bi m'a commencé en 2020 2020 là deux ko c'était juste pour six mois. mais après man maa bëggoon euh, prolongé waaw moom j'ai continué ba deux ans yi mat. te li ci gën a metti mooy chéeraayu matière première bi matériel bi itam noonu la chéré ma dolli ci ay préjugés yu bari laa siy dégg ndax li ma nekk jigéen am ñu may wax ni lii du liggéeyu jigéen am ñeneen ñu naan ma liggéey bi noonu la war a doon. ah métier moom xam naa ne yombul noonu. yombul noonu parce que fu mu toll nii tey jii koo ci laaj mu ne la ah bon pour euh, col bi doon jaar léegi euh, deux mille cinq cent yokku nañ ko pratiquement article yëpp lañu yokk mais moom mooy domaine boo dugg tamit tamit dinañ la wax dinañ la joytu même chose mais neexul ndax tey jii bu nekkee nit da doon jënd daal peeru daal par exemple di ko jëndee cinq mille francs nga dem ba yooyu yëpp yokk boo yëg xëyoon rek jaayee ko huit mille francs peut-être ñi ni duñ la comprendre te boo insister pour jëndee ko ci cinq mille francs boobu du ñàkk ñu defal la liggéey boo xamante ne peut-être du la neex. waaw man moom xam naa ne le fait que ma nekkoon jigéen ci formation bi laa ci xawoon na am tuuti problème ndax ku ñëw dina la découragé moom danaan yii du liggéey pour jigéen machine bi doo ko antan euh, marteau doo ko mën utiliser pied fer même chose yooyu lañ lay wax mais bon man pour man loo gis rek volonté la et que loolu amul ci sens en fait existé wu soo xasee ba fixé sa benn objectif moom da nga koy atteindre rek mais pour une euh, toog dans doon wax ne voilà uude si si direct là en fait waaw daal nañu wax yooyu direct là deret la fekk bon ça n'a rien à voir en fait ça n'a rien à voir Minimum, ni moom ay ay préjugé moom xam tout le temps dinañ ko fi jot di mais mais pour affaire téere beeg yooyu waaw dégg ko mais quand même dafay tax ñu gën a en fait dañuy gën a xeeb liggéey bi nga xamante ne moom ngay def ndax tur bi pour am matière première bi surtout pour cuir bi xool dañ koy jënd euh, soit Pikine wala foofu la ñuy mën a jëndi cuir euh, même simili cuir beeg yooyu yëpp foofu lañ koy mën a amee waaw euh, matériel bi moom du yomb rek. dajale ba mu mat nga mën a jënd moo la ciy génnee xaw na métti parce que tey jii lii bu bee sax par exemple doo ko mën a jënd peut-être industrie yi dinañ ko mën mais venant yi ngay mën yi nga xamante ne deuxième mais la moom ngay mën a jënd bu ñu ko doon estimer tey parce que bii machine bra la machine bra bi dinañ la fayeeku ba ay deux cent dix mille pour nga am ko waaw noonu lay demee mais bu bees bi moom bu bees bi dafa cher trop moom xam naa ne du bu bees doon nañu amal njariñ lool suñu amoon usine de tannerie ndax réewum Sénégal der bari na fi lool te dina doon gën a dëgëral ñaayum produit yi leneen li am mooy li ñuy defar ci der bari na bari boo xam ne day gàllankoor sax qualité produit bi te way wu ñaaw rekk lañu ñu mën a jural ci wàllum réputation moo tax ñu jàpp ni bokk ci association dinañu dimbali bu baax ngir ñu mën a fësal suñuy jafe-jafe ndax sooy xool am nañu mutuelle bu ñu war taxawu ci wàllum wér gu yaram ndax léeg ci liggéey bi nga jëlee ci ay gaañu gaañu waaye du ñu aar sax lu bëri ndaxte artisan yu bari bokkuñu ci mutuelle bi. luñ doon gënal mooy euh, am produit boo xamante ne bu la euh, am fi suñu usine boo xamante ne au fa pratiquer tànn nga xamante ne duñ ci duñ ci xaw a sonn daal parce que fu mu ne nii bu nekkee dañoo am euh, euh, da war a defal sa bopp au tane tane ko euh, ñëw pour defar produit bi au fait ça prend du temps nekkoon amoon nañ ñun ñoo xamante ne juste loolu loolu mooy seen liggéey ñoom ñu pare proposé produit boobu boobu la ñuy gën a arrangé du coup nag moo tax tellement ko dafay jël temps ñii dañuy préféré.

ba pare prix bi nu mu yombee du coup nit ñi xam nga comme que léegi moom kenn mënut a reproché kenn ñàkk xaalis dëkk bi amul xaalis bu ñu gënoon yombal ci côté boobu peut-être que suñu ay produits nañ ko doon gën di gëstu ak di wàññi timit suñu matière première bi parce que mooy tax tamit suñu prix di gën a élevé par rapport ak li ñuy proposition de marché. li ko waral mooy ñoom dañuy bëgg di répondre tout le temps ci demande population bi sans pour ñu imposer li nga xamante ne moom moo moom mooy yoon. tey jii bu nekkee da nga gis koo xamante ne da ngay dem ci leen jënd paire daal boo xamante ne yaa ngi ko jëndee par exemple 1200 xam nga bu ñu la ko proposé nga war a xam ne ne lii est-ce que lii qualité la parce que prix bi rek dina la wan ne carrément que ne lii du qualité mais bu ñu gënoon dëgër ci côté boobu di euh, imposer à ce que artisan yi di defar loo xamante ne qualité la dinañ doon gën a jàppale mais bon comme que ñoom foofu la ñuy gën a. xëccee client te dañuy ne xaar ñu casser les prix du coup ñu utiliser matière yi nga xam ne moom la ñu war a utiliser col bi tamit du nekk euh, qualité yi peut-être dañ koy julliyee wala ñu def si leneen juste pour mën a écouler seen euh, seen marchandise oui je dirais dina nekk un frein mais il faut que ñu gën di di dëggu si côté boobu en fait parce que lépp si ñun la ñun ñoo war a jàppoo man nekk benn pour mën a xeex loolu waaw parce que lépp si ñun la tey jii bu nekkoon artisan yëpp ñu ngi doon nangu tey ji adhéré ci li nga xamante ne mooy association artisan yi par exemple au moins dinañu gën a mën a yokk doole comme par exemple fii ci Kër Massar man maay seen secrétaire général mais bu nekkoon dañuy adhéré parce que léegi da ngay bëgg xëcc nit ñi pour ñu adhéré mais ñoom bu ko gisee noonu dañuy jàpp ne que non li affaire de politique la wala autre chose alors que suñu bopp la ñuy aar bu ñu amoon loolu ñu gën cee dëggu di dem ci réunion yi ak di fekkee yenn yu bëri peut-être que fu ñuy dinañ dem ba dinañ toog ci place bi nga xamante ne ñun dinañ bokk ci ñun dinañ bokk ci ñi di décidé boobu nag moo ñuy moo ñuy arrangé waaw parce que ñun moom suñu association bi am na mutuelle mais bon des na ba tey daal pour artisan yi en fait adhéré ñu gën ci mën farlu mais am nañ mutuelle am nañ mutuelle je dirais que c'est partiel je dirais que c'est partiel parce que mu amaguñu exactement li nga xamante ne moom lañu moom lañu soxla parce que des na xeex bi des na des na encore il faut ñu gën di manko di gën di xeex li nga xamante ne moom mooy point yi ñu gën a soxla pour euh, mën a yegsi ci ci stade boobu loolu moo ñu deseew fa dëkkal suñu bopp